Euh, Seydina Thion ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, maa ngi leen bu baax a baax yéen waa Sénégo ak waa Mprod di la nuyu soxna Nabou di la ziar bu baax a baax di nuyu ñi nga ànd ci biir loolu ñu ñëw fekk si la nag bërëb bi nga xam ne sa waajur bu góor moo ko daal di sant ndax ku ne madinatu madinatu salaam xew yëpp day daal di dem ci Cheikh Béthio 17 avril jot ren nan ngeen koy waajale waaw 17 avril bi moom jàpp naa ni boobaak léegi yàgg nañu ko def xam nga ab cantaakoon moom boo ko woowee ci ak cant da koy woo ci lu mu mën moo waral ñun pour ñu def ak cant dem nañ nag léegi ba mokkal ko ba léegi nga xam ni day mel ni dootul nekk événement ndax lépp lu ci jëm ci wàllu organisation ak ci wàllu tëralin moom moom moom moom mokkal nañu ko ba nga xam da ngay ñëw rek tegu ci loolu waaye ren nag dafa am particularité bu mag ndax euh, bi mooy ñeenteelu yoon buñ koy defee te suñu sëriñ bi di sëñ Béthio fekkee ko te saa yuñ ci nekkee rek suñu xel di nekk ci moom suñu xel sax mësta jóg ci moom waaye bis bii moom day bis boo xamante ni da ko fonkoon ba moo waral Euh, suñu ci nekkee suñu xel ak suñu xol yëpp ci moom lay dem ba tax na ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax euh, dugg nañ ci ci jàmm di ñaan génn ci ci jàmm lépp li ci waroon yàlla dogal nañu ñu mën koo def ba jëf nañu ko woo ñu ngi sant mbokk jullit yëpp nag di sant mbokk taalibe yëpp ndax du cantaakoo ni rek a wuy si ñëpp ñi nga xamante ne ay taalibe sëriñ bi ay ay lañu di ay taalibe sëriñ Touba wala ñu bokk ci beneen tarixa foo mën a bokk gis nañ ni bi ñu wootee suñu cant gi ñëw nañ ànd ko ak ñun kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax. ak biir loolu tey lan moo la gën a marqué ci sa waajur bu góor boobee nga xam ne yaa ngi toog mais sa xel a ngi ci loolu. waaw man li ma gën a marqué ci moom moom li may wax rek dund gu barkeel la ndax sëñ Béthio moom daa yor dund goo xam ni dund ba li ci xew événement yi ci xew dafa bari waaye man li ma gën a marqué ci moom mooy bëgg gi Serigne Saliou Cheikh Béthio yàgg nañoo wax nañu man xaw ma këru kenn xaw ma ceebu kenn nu mu mel man ceebu Serigne Saliou rek laa xam. ndax li ma doon yëpp Serigne Saliou moo ko defal ngor googu mu am ak loyauté boobu mu am jëme ci Serigne Saliou bokk na ci li ma gën a marqué ci moom le fait que mu ne ko jàkk rek te boolewu ko ak dara loo wax mu ne la Serigne sëñ Béthio dem na ba nekk ci biir prison sax nga ñëw fa di ko wax mun la fii bu neexul woon Serigne Saliou du ma fi fanaan nga ne dem na ba xam ni fu mu nekk Serigne Saliou woo ko fa teg ngëm googu nag ak doyloo googu mu doyloo Serigne Saliou bokk na ci li ma gën a marqué ci moom bokk na it ci li may roy ci moom bi ren dañ koy yemale rek ci jour bi wala dañ koy wéyandi di ko féetee ci ay jour waaw 17 avril bi ci ndigalul sëñ Sall dafa wax ni nañ ko def le 15 le 16 ak le 17 dañ koo teeru dañ koy def tey ak suba ci ndigal loolu la nekk tey la le 17 le dañ tàmbali woon le 16 ak le 17 ñetti fan lañ ko def ñun nag cantaakoon mooy li nga xam ne rek mooy événement bu mag bi ñëpp di gis waaye ñun sunu diine yëpp sant la moom ñun foo ñu fekk rek ñu ngi ci ak cant waaye tey nag day cant gu mag gi moo tax surtout da nga da anticiper sama question ay ci polémique bi nga xam ne mu ngi lëmbe réew mi ñi nga xam ne comprendre ñu jàpp na yow ak sa mag jooju di sëñ Sall da ngeen daal di réeroo tungale du teew ñu netaal nga daal di ko leeral nag tey ci mi waaw waaw xam naa xam nga nit ñi moom dañuy ay nit yoo xam ne àddina moo demee noonu àddina nit buñ lay buñ lay buñ lay gis dem ba gisatuñ la rek tàmbale laa jiiñ wala di wax lu ne xam naa ni kon suivre leen mm. waaye man ak sëñ Sall amuñu benn problème maag moom par minute la wax téléphone lu ma yittewoo léegi dama koy woo lu mu soxla ndigal lu ma war a joxit ma def démb ànd nag ay mbokki taalibe ñoom ñu dem siyaare ko fii may waxe yow su ma woo woon ne ma sa sa sa sa interview bii bu mu yegg dama koy dagg léegi ndax man ku ma xam xam ma ci ak taalibe xam ma ci toppee ndax man damaa damaa damaa nangu ay man lu yàlla def daf maa neex loolu nag bu la ko yàlla defalee waxuma la sëñ Saliou waaye keneen dul moom sax du ma réeroog moom man du ma nit ñi nag buñ la gisee xëy na ndax li jëma fii ne da du bari léeg-léeg mbokki taalibe yi ñëw seet si ma ñu nekk ci ci am ci ñu dox waaw buñ la gisutul rek lu bari rek dañuy commencé def ay interprétation waaye loolu nag dara amu ci maa ngi lay seeral ni la jàmm laa seq ak moom mooy sama xalifa di xalifa sëñ Béthio damay topp ci ginnaaw noonu la demee waa. noonu polémique boobu yaakaar naa ne moom suul nañ ko ndax ñi ne woon euh, Seydina Thioune dafa daal di woote côté am euh, ñàkk xam la woon nax tey leeral nga loolu euh, ci biir loolu nag tey guddi gi nan lañ koy woyande parce que commencé na neex nag noo koy woy. waaw guddi gi moom ni ñu koy woyalee mooy cant gi ci bâche bu mag boobu nga wax sëñ saal yu nekk fa fa la ñuy dem. bu ñu fa demee sant fa Serigne Saliou cant gi nag mooy bernde mooy gis nii nga ñu gisee subaak léegi suñuy nag suñuy gileem suñuy xar suñu lépp def nañ ko ginnaaw bu ñu reeree ba noppi nag yees luwaat sangu ba set dem dugg ca bâche ba waxtaane Serigne Touba waxtaane Serigne Saliou waxtaane Serigne Béthio daal di berndewu sant ko way ko feccal ko ban ngay jox taalibe ñu daal di tàggatoo doon sëñ Saliou waa message bi ma leen di jox mooy ñu gën a waat réew mi nag toll na ci jamono yoo xam ni fu nu jaar rek dalal ko ndax ku ci nekk yaa ngi xëcc di am foo jëme te réew mi jàmm la nu fi xam nanu woote jàmm te ne ci jàmm yàlla Serigne tubaab mii nga xam ni moom la ñu yaakaar àdduna ak alaaxira nee na jàmm gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fu ko jëm kon képp kuy ab jullit di ab sénégalais ne fi war ngaa xëcc jàmm jàmm nag moom lay woo taalibe yi di ci woo sénégalais yëpp ñu mànd ah, ñu ànd maase sàmm ko te doxal ko ba réew mi ne waaw waaw loolu moom xam naa yaa leen particularisé rek ndax xam nga ñun ñu ay politique ñun ci fi ñu féete euh, bokkuñu ak ñoom doxalin ndax ñun Serigne Touba dañoo déclassé yóbbu ñu ci leneen loolu ñoom seeni doxalin la xam nga léeg-léeg nga gis ngeen di génne di wax ci que ñu def warut yow ah, loolu ku koy wax mooy xamoo képp kuy wax naan euh, xalif généraux yi dañoo tekk tekkaaral mooy xamoo te dafa am ay teggin euh, xalif généraux ak général yi ñu am amul waroo di waxee ñoom nen ne ñoom du ñoom ñun ñun ñoo leen di digal li ñu war a def ndax ñoo ñu ko gën a xam buñ ñu ko xam bu ñu bu fekkoon ñun ñoo leen di digal kon du ñu jébbalu ci ñoom duñ ñu dem lu ñu digal ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko ñoom lépp luy xam luy luy jot xam nañu ko lépp lu ñu war a wax danañ ko wax ñun ay taalibe la ñu mën a doon topp seen ginnaaw ñu ne kong buñ ne ñu nooy na ñu ne nepp ñoom lu ñu wax rek ñun ci loolu lañ mën